diggante Double Tyson ak Africa Noir bu Gambie ah ci stade bu Gambie nag bu Bakaaw lañ koy bëree ndeysaan ñaari xale yaa ngi noonu ci digg géew bi Tyson gis nga ko noonu moo xaw a xees bi am lu weex li Africa Noir moo ñu wan kanam mooy tibb suuf noonu laal ci loxoom mooy mbëru Gambie bi nga xam ne barki démb moom day am combat Tyson mi ngi dox ci kawam taxaw na diggante Africa Noir Double Sénégal drapeau monsieur Macky Sall président de la République du Sénégal kan moo ko tëgg ñu ne Buur Touré ndeysaan ah ndaw lu rëy Buur Touré def nga lu rëy boo tëggee drapeau Sénégambia jikkee ñaari président yi def nga lu rëy ñu ngi lewtoo ah Tyson door na mais dalut Africa Noir Tyson Tyson mbib na mais taxaw na ah laa mujj doy waar Tyson door na Double Tyson door na Africa Noir a ngi taxaw rek Africa Noir a ngi xaw a dox ci kawam Africa Noir a ngi xaw a dox ci kawam gën naa ne bu ñu jàppante combat bi yegg ci jàmm ndeysaan Double Tyson door na